asalaamaaleykum chers internautes Sénégal set seeti ñuy safoo di ñu seytaan ak fépp fooy mën a nekk ci àdduna bi ku ci nekk fekk naa la fa nga toog di la bu baax a baax di la jox sa waay di ñaan yàlla suñu borom def jàmm ci àdduna bi yëpp ci daraja yi Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ba tey rek ñu ñëwaat ci seen émission Jaljali ma ànd ceeg sama grande sœur bu baax bi macha allah ñu koy amal chaque mardi ak samdi fii ci Sénégal set dama koy bàyyi rek mu daal di nuyoo Daba. sa bula tey lan <laughs> la. waaw asalaamaaleykum mbokki Sénégal maa ngi leen di nuyu di leen ziar bu baax a baax a baax di la nuyu bàjjen sama rakk ji wax na naa la. boo la gisul dama <laughs> la ko feebar. maa sa noir blanc gis naa ko de. déggal macha allah <laughs> damay foo xale yi rek. Eh, wallaay bàjjen di nuyu Sénégal. Mm-hmm. di nuyu àdduna di nuyu askanu Sénégal yëpp di leen ñaanal yàlla gudd fan ak wér gi yaram. waaye bàjjen damay ñaanal ñi nga xamante ni ñoo tëdd ci lalu hôpital yi mm-hmm. di ñaan yàlla yal na leen yàlla yëkkati te ñu tëral kenn mm-hmm. di ñaanal jiitu ju fañ ne yal na gënal fi ñu jugee mm-hmm. di ñaan ñi nekk ci lëndam yal leen yàlla génne ci leer waaye di ñaanal ñi nga xamante ni ñoom la caabi féete ginnaaw yàlla na leen yàlla suturaal dimbali leen ba delloo leen ci seenu njaboot bàjjen suñu victoire bi neex na ci xol gars yi ñu ngi koy féete ba tey ah waaw macha allah yal na ñu Mm-hmm. ay comique topp ci. yàlla bu mu yem fii rek. Mm-hmm. Mm-hmm. muy fierté nag ci Sénégal. ndax Sénégal mosul jël coupe. kon nag bu ñu amee coupe bi ñëw fii ci suñu réew. ñëpp a bég ñëpp kontaan ba léegi nit ñaa ngi koy féete. di ko célébrer mu nekk loo xamante ni nii doy na waar ci àdduna bi. macha allah waaye tey nag euh, soxna jaara moo xewle. maam jaara bu so borom poroxaan. macha allah yaayu xaadim rasool moo ñu jox. koo xamante ni nii mooy Lamp Fall Baabul Muridina mm-hmm. moo ñu jox ki demoon kuttu meeg daw mi moo ñu mm-hmm. jox ki julli ci géej gi jox ñi ki nga xamante ni nii moo dem indaale sëriñ bu rëy bi bàjjen tey soxna jaar moo xew la macha allah soxna jaar moo xew la tey la poroxaan mm-hmm. kon damay daal teg thème bi rek ci table bi ñu fas yéene waxtaan jigéen ñi nga xamante ne nii ay jàmbaar lañ daba waaw bàjjen tey ñuy waxtaan ci thème bu am solo jigéen ñi nga xamante ne ay jàmbaar lañ ay sëykat lañ ay ndaanaan lañ mhm. ndax bu njëkkoon suñu yaay yi bu ñuy sëy dañuy xas bàjjen mhm. xas mooy maa ngi dem sama biir néegu sëy mhm. waaye yàlla naa fa jur lu ñëpp di dégg dëgg la bàjjen wàllu yi ñu ngi ci kaw waaye amatuñu ndey ju leen jur dëgg la tey nag di màggalu soxna jaara muy génn jigéen ju am màggal gi ñu war cee waxtaan yaatal ci lu bari bàjjen ndaxte soxna jaara so mooy way juru Serigne Touba. macha allah xaadim rasul mi nga xamante ni nii moom foo ko mësaan a fekk kaamilu alxuraan bi mi ngi ci loxoom. Mhm. waaye nag soxna jaara. Mhm. foo ko mësaan a fekk mu ngi durus xaside yi. macha allah soxna jaara ba pare boole ko di liggéey. ak di mhm. togg ak di joxe. liñ naan soxna jaara mës naa jël. seen miñ di xar gaalam ne ko booba day bëgg tàngal kafe bëggal sëriñam. est gaal jamono yooyu muy suñu six ba temps yi tey mhm. xam nga tey jii bu bàjjen amee borom kër mu tàngal loo ko kafe gaz ba jeex bàjjen du xar chambre à coucher importé bi di ko xambal di ko joxal di ko mm. defaree kafe déedéet <laughs> te soxna jaara defaloon na ko Mamor Anta Sali waajuru Serigne Touba macha allah mu doon lu doy waar mhm. te soxna jaara bu so yemul foofu mhm. ndaxte ki nga xamante ni mooy waajuru Serigne Touba da daan fanaanee root -hmm. soxna jaara boole kook liggéey mm-hmm. boole kook joxe boole kook déggal Mamor Anta Sali lool mm-hmm. ndaxte Mamor Anta Sali mësoon naa ko dénk aw sàkket ne ko soxna si téyal ma ko fii mm-hmm. déggoon naa loolu soxna jaara téyal ko Mamor Anta Sali bàjjan ba taw ba fekk ko fa ndeysaan soxna si téye ko ba taw bi taw ci kawam ba bët set dégg ndigal dama Mor Anta Sali génn ni ko soxna si looy def fii mun ne ko yaama dénkoon sàkket wi te awma ci woon ndigal pour bàyyi ko bàjjen loolu amatul loolu amatul daba mm-hmm. kon gars yi war ñoo xool mm-hmm. war a roy ci soxna jaara parce que li nga wax mm-hmm. macha allah wax ji aw na yoon lool lool daba macha allah jigéen dafa war a doon jàmbaar. jàmbaar muñ daa war a doon muñ kat. Mhm. waaye man li ma gis léegi xaw ma ko. da gis benn xale. Mhm. bu daal ne man damay muñu damay sëyi su fa demee du fa def sax deux jours. jëkkër ji da koy liggéeyloo mu daal di yuuxu jëkkëram. Mhm. wala nga gis ku jëkkëram tàngal loo café wala mu tàngaloo ko attaaya mu ñoo nekk ko ko sadd amatuñu yar ak teggin. la majeure partie ah. li ma la wax léegi rek wàll wi yaa ci kaw asamaan si waaye amuñu nday ju leen jur. dëgg la boo nekkee ci biir néegu sëy di sëy doo sol lu baax surtout ci comportement. dëgg la bàjjen. jéeg bu ndaw waruñoo gis boppu neenam. jéeg bu ndaw waruñoo gis benn awraam ci biti. mais léegi xale bu ci nekk di sëy. bu ñu gisul sa ndigg. concurrence gisuñu sa yaram. da ngay defe ni yow sëyoo. dëgg la da ngay defe ni yow nekkagoo oo topp. dëgg la non daba doguma la da ngay génn sax taseeg benn jeek mm-hmm. ne ko mère ma ne la bul ma waxati mère jeune la parce ñoo ñoom mag gi la ñuy bañ te ñun mag gi la ñuy ñaan dañuy ñaan yàlla dund téeméeri at ak ñaar fukk bàjjen mm-hmm. soxna jaara 33 ans la dund ndeysaan boo ko xoolee defe ne am na téeméeri at mu liggéey ci liggéey bu rëy bi mm-hmm. ba jurul ñu xaadimal Moustapha macha allah ñu indil màggalu Touba soxna jaara muy koo xamante ni nii référence la royukaay la mooy koo xamante ni nii kenn mënu koo misaal ci àdduna moom soxna jaaratulaahi dëgg la soxna jaara dafa liggéeyal Mamor antasali Sali mhm. ndax euh, ki nga xamante ni nii mooy Mamor Anta Sali mooy way juru borom Touba mhm. nekkoon koo xamante ni it moom it ku bëggoon soxna si la ba pare daan ko liggéeyloo parce que liggéey ñaara ko yor mi ban ban liggéey ak ki koy jàppale ki liggéey ak ki koy jàppale waaw mhm. soxna Mamor Anta Sali jàppale na soxna jaara ndax mhm. soxna jaaro bu so mënoon naa bëgg Mamoor Anta Sali xool nu mu def mais da koo jàppale ci liggéey bi mhm. soxna jaaro doon jàmbaar mhm. Serigne Touba daan ko wan nag ay kiraama dëgg la soxna jaara amoon bàmmeelu biir lu baax ci loolu lu baax ci jigéen lu baax ci jigéen dama ci bari amatuñu bàmmeelu biir dëgg la su leen dara wokkee rek ñu dem ci daba daba lii wokk na ma wala biisu lii laal na ma ainsi de suite wala nga nekk ak sa doom bàjjen mu juddu reetaan nga yuuxu. muy reetaan na reetaan <laughs> na. reetaan na dëgg la. Mhm. muy loo xamante ni xale baa ngi la koy wan. Mhm. nga war ko koo nëbbal. dëgg la soxna jaara amoon bàmmeelu biir. soxna jaara fonkoon waxtu yàlla wi musu koo faat. macha allah soxna jaara kaamil la daan naafila. soxna jaara da daan root ba rootaaleel ay dëkkaal ay dëkkaaleem. soxna jaara moo nekk koo xamante ni nii. mooy euh, benn jigéen ju am màggal gi soxna jaar mooy ki nga xamante ni nii mhm. royukaay la référence la jànkatu alxuraan la mokkal ko loolu ay way juróom yi nga xamante ne ñoo ko mel meññ moom soxna jaara mokkal alxuraan loolu mhm. soxna jaara nekk jigéen ju am bàmmeelu biir mhm. nekk soxna soo xamante ni nii daan na liggéeyal borom këram te daaw ko booleeg ay wax mhm. nekk koo xamante ni ne Cheikh Ahmadou Bamba Xaadim Rasool daan na ko wan ay kiraama soxna jaara di ko denc ci biiram waxu ko ba tey mu jur ku ñëpp di di di yeew dëgg la soxna moo jur borom Touba. sànq wax nga borom wax bu am solo. Mm-hmm. macha allah bi nga nee dañ ko dénk sàkket bi. Mm-hmm. mu téye ko ndeysaan ba taw ba fekk ko fa. Mm-hmm. daba am na jigéen ñoo xam ne ci jamono ji ñu toll. tey seen jëkkër su leen waxee kaay leen téye ma lii. suñ ko téye su heure ba jotee dañ ñaan ko damaa sonn. wallaahi bàjjen bëri na soxna jaara deful loolu kese. teen ba nekk poroxaan teen ba waaw ku dem poroxaan jamono jii mhm. soo fa demee da nga yéemu ci yàlla dëgg la ndax poroxaan ni mu mel àll kese la jamono ya fa soxna a nekkoon kon poroxaan nan la meloon dëgg la kon poroxaan nan la meloon mhm. soxna a nekk fa daan root ca teen ba mhm. teen ba nga xamante ni moo nekk poroxaan tey mu ëlbatiku nekk teen boo xam ne boo fa demoon jamono ji yaa ngi fekk nit ñi rankoo ranga ranga ranga ranga ranga ba mu fees dell mm-hmm. poroxaan di dox ba nekk ci loxoy sëriñ Muntaxa Mbàkke Basiiru ñu koy ñaanal suñu ah, suñu waajooju yal na ko yàlla muy euh, gudd fan lool amiin amiin waaw yàlla na fi yàgg lool te wér Mbàkke Balla amiin amiin ak mboolem euh, jullit baayu soxna May Mbàkke baayu sëriñ mun baayu euh, soxna Waalo Mbàkke sëriñ Muntaxa Mbàkke mm-hmm. bàjjan tey jii ñëpp kontaan Mhm. ndax tey fierté la. dama lan moo tax des fois jigéen ñi dañ naan man dama roy ci soxna jaara. Mhm. fekk laal ñu ci sax. fifteen mosuñoo roy ci soxna jaara dañuy seen jëkkër yi. Mhm. dañuy xuloog seen jëkkër yi. gis naa ci sax ñoo xam ne dañuy dóor seen jëkkër yi. sunal leen witt witt witt lu waral loolu. contraire nag am na. soxna jaaro dab ko yombul. soxna jaara. dab ko yombul bàjjen waaye am na nag ñuy muñ ci seeni kër. dëgg la boole kook maandu. boole mhm. kook yaru lool boole kook muñal seeni borom kër waaye am na ñoo xam ne ña nga ca safaan ba mhm. bu sa jëkkër waxee doo ko wuyu wala tey jii ngay liggéey ëppale sa borom kër tuuti di ko ko wan dëgg la wala nga di ko jaay ni ko man ëppale woo ma mhm. faale woo ko respecté ko lijjanti woo ko bàjjen waxtaane woon nañ ko fi léeg-léeg nga gis koo xamante ni da xëy ëpp sa borom kër wërsëg di ko bàyyi ca kër ga mhm. soo demee liggéeyi ñëw naan ko ndax lalal nga ma néeg bi ndax fabeereel nga ma ndax baleel nga ma su doom yi juddoo nga sonn rek dama ku baleeloo sa jëkkër ñu baleeloo sa barke yonent bi dara su doom yi juddoo rek nga sonn say doom ngeen di tooñ mhm, mhm. muy lu doy waar bàjjen loo xamante ni nii société bi bari na ci dañ ko war a kaas bari na ci suñ ko mënul bàyyi sax ñu wàññi ko waaw am na am na ñoo xamante ni seeni jànq ñoo leen di taajal lekk ndeysaan seen i jànq ñoo leen di fóotal seeni i léegi ñoom nu ñuy sëyee kon. ba seen i njiitlukaay. <laughs> Uh-huh. jànq bi lañ koy jox. bari na fan yee paase am na ku ne ma xam nga jigéen ñi lan moo leen dese. Uh-huh. rëboo buy indi lekk geeg di defalal lépp seen i borom kër ndax xeet nañ léegi jànq. Uh-huh. muy ak tayal ak sàggante gu nekk ci biir néegu sëy yi mhm. bari ci lool mhm. ñu war cee taxaw seetlu mhm. war ko fee dindi d'abord des fois nga dem kër jàmbur nga gis jeeg ba war a atayal ci këram mais jënk baa ko état wala xale ya moom mi ngi sëgg ci téléphone bi ne ci whatsapp bi kaa bu am ko baa téléphone toj na dëkk bi jigéen ñoo xamante ne ni téléphone rek moom la ñuy sëyee mm. faaleetuñ seeni ni kër non loolu dañ ko war a sa borom kër mën naa wàcc ba ñëw ba sumeeku ba tankal boppam ndox ba dugg ci douche bi ba sangu uh-huh. ba sol ay yéreem ba ñëw toog nga ne ci téléphone bi doo sentir ni sax ñëw na ndeysaan muy loo xamante ni lu yéeme la. non loolu dafa salte. bàjjen ku bëgg dara dangay def dara. suñ la takkee da ngay ñëw jaamu sa borom kër. legetu kese naxuti béy. dafay dëgg olof a ko wax. macha allah leget gi boo ci deful dara doo ci fekk dara. téléphone mu nga ciy wax farata. Mhm. mais pas nga sëgg ci whatsapp bi tout le temps. daba bàjjen da tey lii la sol. daba bisu da tey lii la def. kii la def kii la def non non. da ngay sëy dañ la takk pour nga ñëw sëy. Mhm. góorgóorlu nga muñ. Mhm. li ma naan sëy yàggul su doom ya màggee rek. Ah. incha allah rabi nga sol koket géwal yee ko wax. wallaay dëgg mais ñoom la neex la ñuy bu sa doom màggee nga muñatuñu muñatuñu góorgóorlootuñu roy ñu ci soxna jaara borom poroxaan ci bisu tay bi nga xam ne moom la daba tijjee war nañu changé daal mhm. ba tax na ku seetaan bi nekk bis bu yéeme macha allah soxna jaara bu so nga xam ne wuy dina njëkk jigéen ndeysaan soxna jaara bu so mi nga xamante ni mm, moo nekkoon way juru xarit Moustapha tëg fee ca poroxaan cheikhul xaddim ne woon na ku rus ta fekk poroxaan rusuma laa may li nga bëgg ndeysaan Euh, nga xamante ne bu poroxaan jotee ku am soxla bu la ñor rek da ngay daw dem fa mm-hmm. ndax euh, seexul xaddim ak soxna jaara mi nga xamante ni nii ku fa fekk soxna jaara fekk nga fa seexul xaddim mm-hmm. moo ne woon rus naa nit toog ci sama bërëb way jur bi ñaan macha allah Cheikhul Khadim moo ko waxoon. macha allah moo ñëpp dañ fay utali. dëgg la boo demee fi mu toll nii yëpp nga fa. xel yëpp nga fa muy lu yéeme jigéen ji liggéey liggéey bu bi. daa doon jigéen ju mën góor jàmbaar la wallaahi wallaahi macha allah jàmbaar la moo fi jur ki fi indaale sérité bu rëy bi. macha allah moo fi jur ki nga xamante ni nii moom la noonu sonaloon loolu nootoon ko loolu. mu ñibbi si Mbàkke Balla ay sabur yi taxaw fii ci port ni baal naa leen baal képp ku ma yaakaar Xaadim Rasuul def ko soxna jaare di way juram jigéen ñi war cee roy bàjjen mhm. bàjjen jigéen ñi dem nañ ba ci tontu bu sa jëkkër ne benn nga da koy yuuxu dama des fois nga gis jabar yoo xam ne moom mooy ëpp laamin jëkkër sa kii est bizarre mhm. yal nañ ci yàlla musal bari na fi sa jëkkër day wax nga yuuxu ko ba pare di ko ndamoo boo sama jëkkër yabu ma xarit <laughs> sama jëkkër yabu ma bu ma ko nee yàlla nañ ci yàlla musal mu xam li ma ko wax pour lan bàjjen yebaate ak réew foo gis jigéen ju toog ni uh-huh. sama jëkkër maa ko yilif uh-huh. ka nga bu dee ay nit lañu waruñu laa fonk moo tax dama naan soo takk jabar na ko xool bu baax a baax uh-huh. na am diine na am lislaam nay wax nànk day ko fréquenté lu bari des fois nga bett ko parce que jigéen ñi lu ci bari ñu baal ma xaj bi yëpp dañoo foo liñ lay wax ak li ñuy def dara bokku si bàjjen nee nañ mhm. jéeg dina sëy ci kër ba jaay doomam te yëgu ca dara dëgg la waaye jéeg dina sëy ci kër ba lambal doomam te yëgu ca dara akay ndax jéeg dina ci kër am yar ami teggin dox nànk wax nànk muñ fa lu ne mhm. nee nañ dafu kër gi mooy jur nit nit ki ki nite ëllëg boo nekkee ci kër mhm. di sëyal sa borom kër muñal ko tarbiyu ko ndeysaan ku bëgg si jabar bu ñëwee sa doom lay takk dëgg la waaye boo nekkee ca kër ga am fit lool mm. ragaloo dara tànk mm-hmm. jëkkër du wax goro du wax jarbaatu jëkkër du wax njëkke du wax ku ñëw gis fa sa doom fala la koy tegal ndax mm-hmm. danaa li ne ci ndey ji moom la ndey ji yàkkal doom ci dëgg looloo tax man la jéeg dina sëy ci kër ba jaay doomam te yëgu ci dara waaye jéeg dina sëy ci kër ba lambar doomam te yëgu ci dara ñu xoolaat jikko yi mm-hmm. rafetalaat jikko yi surtout sa fonk sëy yi te déggal suñuy borom kër ndaxte nag ku ku ku ku sóor ku ku ñuluk sa sa sa jëkkër rek mhm. di nga yàq sa doom loolu la olof njaay wax ñu taxawaat ci sëy yi bu baax a baax tarbiyuwaat suñuy borom kër jóor ñi tamit yërëm ñu mhm. jàppale ñu ndaxte it euh, jigéen dina jur lu baax waaye góor war na koo mën a jàppale bu baax a baax a baax pour mu mhm. jur lu baax euh, bàjjen euh, xam nga ne thème bii tey ñu jël am na solo loolu mu dëppook nag bésub soxna jaara bi moo tax ñu war ci xuus bu baax a baax a baax a baax a baax jigéen ji nga xamante ni nii nekk nga ak sa borom kër bàjjen mm-hmm. bu la joxee téeméer bu ko ko xeebal am na ñu koy xeeb téeméer boobu la am bàjjen am na ñu koy xeeb mën nga koo négocier wala ñu sànni ko ko nekk du ma laal dépense bi waaw xanaa kon foofu mbëggeel amatu fa bàjjen euh, muy jigéen ju ñàkk muñ rek ndeysaan te loolu lépp ca way jur ya la mm-hmm. ndax way jur war naa éduquer doom boobu ëllëgee fu mu nekk di fa sëy def fa lu baax mm-hmm. bàjjen léegi na ma yàlla baal te jéggal ma bu njëkkoon da ngay dugal sa doom alxuraan dëgg la ba mu fees ci dënnam nga dëg koo dugal français dëgg la bàjjen loolu amatul xale yi xamatuñu nu ñuy jugee nga ni soxna jaara 33 ans nga dund ko macha allah daan naafila kaamil xam nga ne loolu yéeme na bareetul loolu amatul jën bareetul. Mm. xaaju fi ba di fi amat parce que des fois góor da lay takk sax ne la góorgóorlu woo jéem a la roy ci soxna jaara li nga def dara baaxu ci. Mm-hmm. dugg na fii génn fii. yal nañu yàlla musal ci loolu. wallaay wala nga roy ci maam Faawaat du wele. dëgg la. mi nga xamante ni nii moo jur Serigne Babacar Sy. Mm-hmm. mooy way juram. macha allah ñooñu ñëpp ay royukaay lañ. dëgg la ay référence lañ. Mm-hmm. ñooñu ñëpp ñi nga xamante ni nii dañoo muñal seeni borom kër lañ ba tey jii ñu dégg. wiiw ci seen i ci seen i ci i doom mais daba nag góor ñi mm. léegi dafa tuñu de soo sëy sëy di leen jaay laamit mu nga ne mm-hmm. wala ngay jaay reewande ñoom dañuy dem ut deuxième femme takk indi ci kër gi deuxième femme bëgg leen a sonal ñu daal di indiwaat ñett fenn oh, dëgg la waaye bàjjen mm-hmm. boo nekkee góor am ful la am fayda mm-hmm. takk soxna mu yaree di lool bu la neexee mën nga koo jubbante ci sa jikko am soxna yu dëgër boobu daba am na waaye bëgg burusul toj ki nga bëgg a jàngal baax. Uh-huh. da koy woo ci mbaax. bàjjen tey jii boo ma doon def lu metti ma di la teral di la teral di la teral bu yàggee di nga rus. Uh-huh. ni daba mii kat fu ma toll di ko ut. mu uh-huh. may teral dëgg la di nga rus. koy xam daba. dëgg la waaye bareetul. dëgg bàjjen am na jigéen ñi nga xamante ni nii. dépense bu leen seen borom kër jox ñu weer ko ci mbedd mi. di ma jox dépense bu mat. am na jigéen ñoo xamante ni nii am nañu bàmmeelu biir sëy bu ñu siq ak seen borom kër bu guddee bu ñu xëyee nettali ko seeni xarit muy lu doy waar surtout non loolu dafa salte loolu moom il faut que ngeen arrêté ko surtout loolu am na loo xam ne vie privée la dëgg la am na loo xam ne secret la ndaxte yàlla dafa sàkk guddi sàkk bëccëg ndeysaan guddi di sutura kese muy lu salte nee nañ guddi bu jékki-jékki woon nekk bëccëg ñëpp dinañ weeru <laughs> ak ay dëgg ba yàlla sàkkee guddi la ci def sutura. dëgg la nekk ak sa borom kër bàjjen. Mhm. bu njëkkoon suñu yaay xamuñu woon lii. booy seeg sa jëkkër tant que taaloo lampe bu leer naññ bu mel ni projecteur. Mhm. doo am lu la neex. benn liir juddootul gëmm bu njëkkoon liir day juddu gëmm bàjjen nga jël ko liir di ko def ci ay bëtam une semaine 15 jours muy doog a xool mbaa loolu amatul léegi liir bu juddu ci biir maternité bi ngay xoolee nii di xool di xool maternité bi mbaa du lamp yaa tax waaw <laughs> dëgg la muy lu doy waar loo xamante ni nii uh-huh. dafa war dafee dafa daf dafee war a jug uh-huh. du fi jug sax parce que nag dem nañ ba tàmmal ko seeni bopp mais ñu wàññi ko nit da nga daan am sutura am na ñu neex a digal mag da nga daan toogal mag mën a composé ak moom buy uh-huh. wax ak yow nga wàcc say bët Mm-hmm. léegi di nga dem ci kilifa sax jàkkaarloog moom fixé ko kilifa gaay mujj wàcce bëtam waaye yow muy jigéen da nga koy fixé ko xool da nga war lam sa xool ci suuf muy doy waar muy lu doy waar des gan ñëw jigéen xool ko ba mu rus ba daw lépp di éducation ba génn ci xale la commencé ah dëgg la comme li nga wax éducation de base dafa am solo trop la amatul gan gi day ñëw nga jël sa banque ci ko toog jàkkaarloog moom dëgg la di ko xool mhm. yaay du wax papa du wax parents yi tamit dañoo war a mhm. insister foofu bu baax baax doom dañ koy yar mhm. parce que doom mooy màgg ëllëg daal di sëyi man gis naa koo xamante ne ay parents am dañ ko bay bayal yàq ko muy def lu ko neex ba mu sëyee daf doon tontu jëkkër ja jëkkër ji après bi mu joteweeg moom dane ah c'est pas grave parce que seen waa kër ñi lañ ko yaree dafa muy ñu ñaaw muy lu ñaaw bu njëkkoon yaar gan daan ñëw ci kër ga ba dem sa wéyjur woo la ñu la waaye yow gan gi fi ñëwoon sànq man di xooluma ko sax ban couleur yére nga sol ndeysaan xale bi ni pat ñu la xaw ma ko de xàmmee wa couleuru dàll bi mu sol nga ne xaw ma ko de mm-hmm. même donte xam nga ko doo ko wax dëgg loolu nekk ci édu muy éducation amatul léegi boo woowee nit ni ko gan gi fi ñëwoon mu ne la laa yow yaay gisoo ko mari marinière la sol daa fànt ginnaaw ga daala ci teg lu ci bokkul bu njëkkoon bàjjan da nga teg ndax Mhm. dañ naan la lekkal ba jot ndawal li ci digg ndab li yii amatul waaye léegi boo tegee ndab sa doom moo lay njëkk a raxasu wuccax loxo ba dagg ndawal la ci digg bool ba teg ci kanamam te yow mi wayjur bi doo sañangaan doo ci wax dara ñoom bëgguñu bëgguñu seen doom de yar moo amatul ñooñu bëgguñu seen doom dañoo yar dañuy yàq seen doom dëgg la mais loolu yëpp ci éducation de base bi la ak am solo bàjjen éducation de base amatul surtout jigéen muy lu doy waar xam ne dafa war a dem sëy ji dëgg la wala muñ mhm. wala góorgóorlu wala fonk borom këram mhm. mu fas yéene roy ci soxna jaara wallaay dëgg la amatul dëgg la yaay yi tamit nañ xoolaat lañuy def nañ yaraat xale yi li ma naan àdduna yàggul kenn dëkku fi loo muñ mu jeex waaye dara yàggul tamit daba jumba aawul bàjjen génn na fi mhm. góor ñi di kiris ko war dal seen i ba ci suuf ndeysaan seen jiitlukaay di feeñ àdduna yàq na jumbax aawul léegi xew yi na la ñuy def même seen gazinière wane nañ seen jumbax ba mu neex leen mhm. ñuy wane seen i suufu ween kooku nan lay juree ku ñuy dégg kooku nan lay juree ku baax dëgg la chaque at rek at li ñuy génne. Mhm. te li ñuy génne dara du ci baax. buzz lañ koy def pour ñoom buzz la. te Sénégal dafa xew. ñu baax rek fi tëdd. billaahi boo seetee Cheikh Ahmadou Bamba. macha allah maam bu Kunta. li mhm. maamu laay ah ñaseen ñi. ñu ngi fi dëkku diine la. ah muy dëkku diine. di mhm. dëkk boo xamante ni dëkku yërmande la. dëgg la di dëkk boo xamante ni it dëkku teraanga la. ndax boo nee Sénégal rek. ñëpp ni dëkku taraanga lañ ciy teg. dëgg la moom la xam moom la ñu xam. kon ñun ay référence la ñu képp ku ñëw fii ci suñu ci suñu suñu dëkk bi. Mhm. war nañ laa wan loo xamante ni nii. Mhm. boo demee da nga ciy jëlee jàngat. Mhm. alxuraan nag nekk fi ñu di ko fi wàcce jàkka yi bari fi lool. kon lu bon. war nañ koo jomb ci suñu dëkk. dama tamit am na ñu dëgër bopp. war nañ koo jomb ci suñu dëkk. am na ñu dëgër bopp. dëgg la lool am na jéeg joo xam ne seen jëkk dañuy wax ba sonn. Mhm. seeni goro baax loolu wax ba sonn. Mhm. seen i xarit comme daba wax ba sonn. ñu bañ ne jëkkër damay bon. jëkkër man du ma baax. Mhm. seen doom yi après ñu màggee ëllëg ñu naan su dem démb doon tey. nañ maytu su démb doon tey parce que su démb doon tey c'est trop tard. fekk na paase na. bàjjen su màggalu Tuubaa jotee. ba nga gis ni tali bi di gis Europe billet dootu fa desati. dëgg la ñu ñëw. fépp ci adduna bi. jinne yi sax dañuy màggal si. dëgg la te ki ko def di jigéen. kon jigéen war naa xoolaat boppam. dëgg la. boo xoolee gàmmu ci waawan mhm. bu ñëwee. xoolal fu ne la nit ñi di gàmmoo guddi Seydina Muhammad. sallallahu alayhi wa sallam mhm. te ki nga xamante ni nii moo koy def. jigéen jur ko. Mhm. ñu xool ci loolu. bàjjen war a changé. mais. loolu yëpp yeewatuñu am na mm-hmm. ñoo xamante ni tey jii na nga poroxaan xam nga lu leen fay yóbbu mm-hmm. defante dëgg la xooluñ ñi ka fa nekk 33 ans la dund la <laughs> dégg naa rek fi ñëpp dégg uh-huh. ña ngay dem di maquillage yu ña ngay dem pose xef ña ngay dem di defante naan poroxaan fa la defante ba ne mm-hmm. waaye yow doo defante ni soxna jaara def ba am poroxaan dégg naa dëgg dama sañ jëbi sax duñ ko sukk ci suuf julli xalaatuñu ko dëgg la amuñu diine amuñu lislaam wallaay timis duñ ko julli fajar duñ ko julli tispaar duñ ko julli takusaan duñ ko julli dëgg la bàyyi ñoom dañuy ne ci leneen di defante mm. ba seen xol sedd wallaay ñu daal di ñibbi si dañoo war a xalaat ne bis peñ dafay jot loo mën a def sa àdduna waxtu julli su jotee arrêté ko nga dem julli mooy première nga def li ngay doog a def loo ci gis moo tax jamono bi doy na waar feebaru xel yi ak a bari léegi ku gis boo ko laajte ñu ne dafa am feebaru xel mais dëgg la am ñoo seen xel koo gëj a gis boo ko laajtee ñu ne def feebar anamu ma nga dalal xel fa lañ ko ànd dëgg la xam nga lan moo tax uh-huh. seen cër yeeg seen awra yi ñuy bàyyi di ko génne ci biti akay dëgg guddi daa am boroom uh-huh. boo ci dee dox def bopp neen uh-huh. nit dina ñëw dugg sa biir bopp bi jaxase ko nga wéradi <laughs> ñu lay faj nga bañ ñu doo wér dama dama gis ñaari maire benn maire bi macha allah war na am ay quatre-vingt-huit ans yàlla na ko fi yàlla bàyyi mu dund téeméeri at ak ñaar fukk ci daraje Seydina Muhammad waaye maire boobu fu waxtu julli jotee naax gi danaan ba xam julli jot na. dëgg la daal dem julli ji. Mhm. ka beneen sët bi daan ne man de sama maam du waxtu julli jot na sa mhm. waxtu julli su jotee day saaga ay ndey ma ne ko xanaa sama maam ba julli respecté wul julli yi a mer ko dëgg laa wax di mer mhm. dafa naax moom si julli li ko xiir say sa maam doon na julli nga ne sa maam pour waxtu julli jotee dafay saaga ay ndey dëgg la kon sa maam na xolaat boppam de base bi ma la wax rek dëgg la mooy de base bi ma la wax diine da la yokk accept dëgg boo amee diine rek da ngay séduire. boo saltee rek amoo diine. ndaxte diine ak salte àndul. set du sangu rek ba set. set du soccu rek ba set. Mm-hmm. set ci doomu aadama lay ne. da nga naan jàpp ci xam ne fam leer macha allah. bam ñu fi wàccee. Mm-hmm. lu nekk dañu koo tegal. dëgg la bàjjen yàlla du nit. daf ñoo jël def ñu ay doomu aadama. Mm-hmm. ba pare jël ñu jox ñu ay yëre yu ñuy sol. ba pare jël ñu jox ñu ay kol yu ñuy muur suñu bopp. jox ñu laal ñuy tëdd. jox ñu sijaada jox ñu jox ñu satala lu mu gën a bind nit da ci gën a fonk macha allah suñu borom yàlla lu mu gën a bëgg rek doomu lu mu bind rek doomu aadama bi dëgg la gën a fonk dëgg la waaye ñun bàjjen fonk ñu suñu bopp akay dëgg muy dëgër bopp gi ma la wax rek la majeure partie. am na jigéen ñoo xam ne nag dañoo baax. parce que mm-hmm. ñun fi ñuy waxee nekkul rek dañuy jël ñëpp rek dëxëñ def ci cin li. déedéet fi ñuy waxee mooy côté bi nga xamante ne nii. Mm-hmm. dañoo négatif ba tey soo seetaanee jal-jali. di nga ne ah man kat xaaral ma changé. Mm-hmm. xaaral ma góorgóorlu ndax li daba wax waaye li bàjjen wax am na solo lool. ba samay suñu màggee sax ma daal di soli coquette waaye ñoom dañu naan ah déedéet. ñi nga xamante ne dañoo négatif ñoom dañu naan déedéet. wallaay la waaye nag éducation du wees. ndaxte macha allah soo demee Poroxaan daara ya fa nekk daara yu soxna jaara la mhm, mhm. ay jigéen dong nga fa ne mhm. xale yu am douze ans bàjjen di wàcce kaamilu alxuraan macha allah gis nañ ko fan yi image yi nga xamante ni nii ay xale yu wàccee poroxaan ñëw ci sëñ Muntaxa Mbàkke Basiru ubbi seeni kaamil di ko jàng sëñ bi kontaan xol bi sedd lool macha allah boo demee poroxaan soxna jaara yi boo leen gisee dangay ngay kontaan ña ngi ca daara ya xale yi ñu jàngal leen liggéey jàngal leen araw jàngal leen ni ñuy toggee jàngal leen service jàngal leen set waxtu du leen raw mhm. ba pare ku ci tijji kaamilu alxuraanam nga kontaan mhm. te loolu lépp ki ko créé ak fi mu jógee moo ci soxna jaaro bu sow mhm. bis borom bis bi tey macha allah bàjjen kon kii royukaay la kii référence la am na kii jigéen la joo xamante ni nii dafa liggéey kër Mamor Anta Sali ba am lii mu am kon bisu tey jii bu ñëwee jigéen ñëpp war nañ cee jàngat dëgg war nañ cee xalaat muy soxna jaara bu so bu ma saana ayee mhm. nee nañ donga yi dañ daan rakkaaju ndeysaan di dañ garab yi tey dóoru waaye kenn du ci gaañu ndax soxna jaara kiraama la mhm. soxna jaara bu so mooy koo xamante ni nii macha allah exemplaire la macha allah exemplaire la mhm. mooy ki nga xamante ni nii lu nekk def na ko lu nekk muñal na ko Maam Mor Anta Sali ban jigéen ngay fanaanal ba bërsat mu tëye benn objet ba bërsat waaye tamit daba jigéen bi nga xamante ni dafa ayee di mm-hmm. togg mm-hmm. waa donga ya kontaan lool xale ya kontaan lool ca kër ga ñëpp kontaan loolu bareetul des fois jeg day ay ci kër fii ci senegal ga daan ne ah daa dem xool ji kër daba wala kër dem ba dem añee fa parce que dafa am jeg yoo xam ne dañoo siis suñu ayee ñoom seen yoon nekk ci lu bon la ñuy togg yaa xam te nañoo pare sol seen lu bon xëc ci WhatsApp bi di kaa daba sëy sëy amatul de wala su amee tamit bareetul dangaa ñëw fu am solo uh-huh. ma ne soxna jaara bu ayee doo nga yëppay rakkaaju surtout loolu dañ garab yi cee dóoru waaye kenn du ca gaaju tey jii première plat mooy kanam boo toggee mer kan mooy lekk sa togg boo toggee di yéeg a ko wàcc di togg mera mera mer fas sa kanam ku kenn du ko lekk añ sax day daw kenn du ko lekk bàjjen mm-hmm. li ngay togg mën naa bañ a neex waaye na présentation ba lekk garafet rafet bàjjen boolu lekk dañ koy ub fomp ribooree ba mu baax talatuñu ko tànk raxasu teg mhm. léegi da ngay jël bool yekke ko ca fële yanoo ko noonu bool bi sans ub sans dara nga ñëw ni ko déj lépp dugg ci yàlla ñuy aar mais doy na waar ay jinne <laughs> tim lekk ga ñëpp tim lekk ga bàjjen léegi xale day ubbi rek léegi xale yu bari càmmañ sax la ñuy lekkee seen yaay tamit ñu ñàkk éducation seen yaay duñ leen wax ba xam càmmoñ ngeen di lekkee wala dara leen déedéet mu doon lu doy waar dëgg la loo xamante ni nii mi ngi ci suñu societé ñu war ko fee dindi nag mhm. wala mu war a wàññeeku ndaxte nag boo seetloo ñi nga xamante ni ci ñoom la ñuy roy dañoo dañoo dañoo dañoo dañoo doyoon waar mhm. parce que diine lépp a ngi ci dëgg la yàlla suñu boroom dëxañ ci lépp ci alxuraanam ji mhm. xam nga ni ñun rek presque léegi ñu am ay ay ay quarante ans. Mhm. soxna jaara dund 33 ans. def fi liggéeyam bu rëy. mu mel ne dafa dund téeméeri at ak ñaar fukk macha allah parce que lim def dafa dafa dafa dafa dafa doy waar. boppam bii kenn taaw ko gis. da daan da daan muuru jël ay rabal tegoo ko moom soxna jaara. Hmm. te du ko teree togg du ko teree root. du ko teree fóot du ko teree jàng alxuraan du ko teree naafila waaye nag du ko teree topp waxtu yàlla juróom wi. foo ko fekk mi ngeeg satala mi ngeeg kurus mi ngeeg kaami bi ci wetam soxna jaara musul tàqali kook moom non da ngay gis benn jigéen bu naan man du ma fóot di togg mhm. mun naa toog kase wala man du ma sëy sama kër goro di minaas mhm. kër ga mhm. nañ ma jëlal jànk xalaatuma ko ba da nga bëgg am doom yu baax dëgg la sax sëy secret la mais tamit dañoo war a sëy de daba dañoo war a góorgóorlu daal di changé wallaay xam ne jëkkër du caaxaan ni ko géwale di waxee ak olof yi waaye ñun li ñu jël jëkkër def ko morom def ko wujju weer ko sama xarit ji démb sama jëkkër mhm. lii la sol démb lii laa def ak moom mhm. cinq mille ma jox di dama am xew dem na ci ba am ñoo xam te ne dañuy jël seen jëkkër di leen teg dil duñ delloo weccat di créer ordonnance di kër yee passe ay waay seen doom yi ngeen di rey muy yu doy waar wala sa jëkkër ñëw teg yéreem ngay làmbi poosam yal nañ ci yàlla musal yal nañ ci yàlla musal bàjjan jigéen ñi la ñuy waxal. ndax mm-hmm. dafa nekk bisub soxna jaara. Mm-hmm. góor ñi am nañ ci part de responsabilité. surtout mais beneen yoon. dëgg la mais tey soxna jaara. Mm-hmm. moo aye. ndax ku góor ki nga xamante ne ni lépp war na la ci sa kër nga di ko def. amaana tey jii sa sa soxna du làmb say poos. dëgg la moo tax man la ci éducation de base la. dëgg la moo tax ma ne la soxna jaara li mu mënoon comme li nga wax. waaw mun naa mun naa ko roy tuuti de waaye dab ko jafe na parce que lépp la boole xultuwul wallaay tàyyiwul jàmbatul jàmbatul moo tax macha allah mu ngi fi xaadim rasul Cheikh Ahmadou Bamba wallaay dëgg la mm-hmm. nee nañ Cheikh Ahmadou Bamba biñ ko indee fii keroog ci ci ci ci ci ci ci port ndeysaan muy fii nga xamante ne nii mooy ñaari guddi ndakaaru yi dañ mm-hmm. naan boo xalamee ñaari guddi ndakaaru ñu wax la la Bamba wax nga daal di waaru ndeysaan Serigne Touba lii mu dund ci ndakaaru moo gën a tar ci ay jaar-jaaram. dëgg la moo tax tey suñu borom yàlla fay ko Masaalikul Jinaan. macha allah macha allah te loolu lépp liggéeyub soxna jaara la. Mhm. ndax keroog bañ ko dugalee ci néeg boo xamante ni matu sax un mètre Serigne Touba nekk fa ràbb yu jam ko. ndeysaan mu mu mu doy fa waar lool bàjjan. liggéey ndey ma ko walul nag. soxna jaara feeñu ko fa. simple rabia ni ko xaadimal Moustapha macha allah yaa ne woon mën ngaa liggéey liggéey bi ba yàlla teg la liggéey bi macha allah ni ko yeggaleel sa yoon ndax pare goo daba bul ciit bul raf bul onk kenn du soxna jaar daba xaadim li nga wax rek liggéey ndeyam liggéey ndey dafa am solo trop trop dëgg la jigéen ñi dañoo war a liggéey seen kër jëkkër yi nda ko xool ni daba wax nii macha allah sama yaram bi sax dafa doon daw billaahi soo sa yaay su liggéey lee dëgg góorgóorlu tërbiyew sa kër papa billaay soo génnee da ngay fa xasar rek waaye doo daanu nañu góorgóorlu dafa dafa wax ba <laughs> bëri sax dafa taa macha allah kenn du Cheikh baam Bamba jigéen da ngay dal jigéen da ngay bul ne mënuma dama naan des fois benn parenthèse laar amul ndilaar amul de soo jàngee da ngay dem waaye tamit damay sëyi kër Abdou damay sëyi kër monsieur Mboup damaa war a doon jàmbaar damaa war a góorgóorlu su demee bàyyi lépp yàggul 18 ans sa doom joxe résultat macha allah daba eh, bu yàq émission bi <laughs> ndeysaan moom dafa bëgg waa kër Cheikh Amadou Bamba Khadim Rasoul bu duggee foofu rek ronga ñi dafay sotteeku mu daal di jooy ndax ni mel ci Cheikh Amadou Bamba Khadim Rasoul moo tax xam nga ne lii daw na yaram ñu yóbbu ci sëñ Touba na jaar gi sutul doomam ah am lu koy lu koy jam d'après li mu expliqué ndeysaan yaayam daal di ñëw daal koy wallu kon sama mbokku jigéen ñi képp koo xamante ne nii danga doon sol sol bu bon di def lu la neex ba pare rek ci gën a bisaar daba bul jooy daba bul jooy dañuy génn naan barki Soxna Jaara wala barki Cheikh Ahmadou Bamba ki ngay waatee day fekk nga nekk ci ay ndigalam dëgg la del julli del woor del jaamu yàlla surtout julli surtout julli yàlla julli la santaane julli la yàlla njëkk wax quel que soit muy góor muy jigéen da ngay julli sa jëkkër lum la wax nga def ko sëy metti na mettiwul say goro liggéeyal góorgóorlul waaye jàpp sa jëkkër def ko moroom su la nee benn nga ne ko ñaar mu ne la ñett nga ne ko ñeent ah ñu daal di seetaan rek doom yi suñu màggee biir lay dañuy mere seen yaay ngay gis ay doom yoo ne dañuy daggal seen yaay saaga fekk na seen yaay ñoo ko def daba xam nga ni soxna mi nga xamante ni mhm. dafa liggéey liggéey bu rëy bi def jaloore ji mhm. jur koo xamante ni nii téeméeri jàkka xaadimal Moustapha rekk a ko am ci àddina mm-hmm. muy tuubaa Mbàkke te ëpp na ko sax mm-hmm. foo toll yaa ngi dégg noddu ga mm-hmm. te benn jigéen rek liggéey ko muy soxna jaaratullaahi moo tax ñu war ko roy bu baax a baax a baax dëgg la bàjjen ñun jigéen yàlla dafa am lu mu def ci ñun dëxëñ ko ci ñun nee nañ yàlla secret yëpp ci jigéen la ko def dëgg la kon ñun baax rek moo ñu war billaay ñun roy dañoo war di roy ci ñun ñun def lu baax ak yaru ak teggin ak am diine ak respecté suñu bopp ak respecté suñu liggéey loolu moo ñu war ndeysaan ndaxte jigéen mooy jur ku ne mbàjjen mm-hmm. jigéenee jur laago dëgg la jigéen mooy jur silmaxa mm-hmm. jigéen mooy jur lu nekk ci àddina dëgg la dama jigéen dafa sonn mbàjjen ndeysaan jigéen lu metti lépp moom lay dal. moo tax man la yàlla secret yu bari da koo dañ ko dénk kon nag ñun baax. kon jigéen dafa war a am secret hmm? man jigéen ñi ma gis léegi amatuñu secret. lu wax ñu waxe ko. duñ dégg mu siiw. amuñu bàmmeelu biir. Hmm. te li ma ci gën a metti mooy lépp luñ def ak seen jëkkër dañuy xëy di ko toogee kon est-ce que sëy ama ci na sutura. mooy li ma la wax sànq rek. Hmm. naa la balaa seen waxtaan di neex. nga ni biig ci guddi de sama jëkkër ba mu summee ko. ndeysaan wala nga ni biig ci guddi sama borom kër da nam ma def mooy lu doy surtout loolu. Hmm. sëy secret la. foofu sëy amatu fa. sëy secret la bàjjen. mais boo xëyee sama boroom kër di démb li ma ko wan. amul sens. am yaa ngi toroxal say doom. dëgg yaa ngi rusloo say doom. yaa leen di gàccaal. yaa liggéey bi ngay liggéey. ndaxte bàjjen sëykat buñ muur ngay dugg sa biir néegu borom kër. yow miy jigéen. yaa mën a wat ni doom ji ma am ak sama borom kër sama borom kër a ko jur. dëgg la. dégg naa dëgg. loolu rek la mag ñi daan wax ni jigéen rek moo mën a waat ni doom ji sama borom kër a ko jur. Mhm. booy dem sa kër borom kër dañ naan la muñal defe naa ni fu nga jëm bu neexoon kenn du la muñ loo. dëgg la muñal nag li ko li ko ëmb lépp bari na. Mhm. ndax sens la rekk nga dem fa. Mhm. lu ne nga fay dajeel lu ne nga fay fekk. ñoom ñemetu ñun dund métit nee nañ. soxna jaara ba muy dem kër ma Mor Anta dafa xas ne su ma demee dinaa fa jur ku ñuy dégg macha allah tey jii jur na fi xaadimal Moustapha te dara du ko dindi dëgg la jur na fi koo xamante ni nii macha allah li Cheikh Diop Mbaye naan ko soxna jaara sa doom ji moom la ñuy añee di reere kenn bilaay dëgg la kenn mënuñu cee suural ak ay dëgg ñu dem ñun bay jëfandikoo Serigne Touba <laughs> uh-huh. ci loo xamante ni nii way juram rek moo ko def bàjjen li ma la waxoon ngay ree mosoo dégg kuñ a baay saanam anday saanam rek lañuy wax. dëgg la nday ja rek la ñuy wax. abaay saanam kenn du ko wax. dëgg la nee nañ doom bu baaxee doomu ñëpp lay doon waaye bu bonee. yaay dañ naan ana ndayam. kon nag ñun war war na góorgóorlu war nañoo góorgóorlu. Mm-hmm. ba ndax ay royukaay lañ. ndax ñun ay yaay lañu. Mm-hmm. ñun ñooy lépp. góor ñun ñoo koy jur. Mm-hmm. nee nañ bu jigéen du mayee jabar. du dem ca jàkka ja di nodd dëgg la waaye nag ñun ñooy jur ki koy def mm-hmm. kon ñun war nañoo respecté waat suñu bopp xam ñun ñooy kan ndax dañoo bari valeur loolu suñu borom defal ñu loolu mm-hmm. bàjjen nit ak noppam xoolal ni mu toll yàlla dénkuñu ko ndeysaan ñuy ànd ak moom bu ñu tëddee mu tëdd presque presque muy lu doy waar billaahi yàlla saxal ko bakkan saxal ko gémmiñ saxal ko lépp mhm. def ko ci suñu biir yi kon yàlla lu riche la ñu dénk mhm. kon ñun def lu bon waruñu mhm. def lu ñaaw waruñu dëgg la baar du suñu place dëgg la bàjjen fréquentation yi yenn milieu yi du suñu du suñu soo fa demee rek da ngay jommi surtout jigéen comme li nga wax léegi-léegi li yàlla dénk jigéen dénk ko góor li yàlla dénk góor dénk ko jigéen waaye mm. des fois nga dem milieu yoo xamante ni fekk fa ay jigéen mm. da ngay mujjee tiit mel ne ñeneen nga ci seen biir parce que mosoo xam loolu mosoo gis loolu ci solin léeg-léeg nga dox guddi gis jigéen ji yor doomam jàpp ko ci loxo taxaw ci rii yi di yalwaan muy lu doy waar dëgg la man jàpp naa ni jigéen boo pattoo laggi woo dara jotu la rek mm-hmm. tànk yaa ngi mën di teg sa tànk yi ci suuf di wax alhamdulilah rek mm-hmm. liggéey wàccu la dëgg liggéey wàccu la mm-hmm. mais nag di di di di taxawaalu di di di di def yoo xamante ni du suñu cër mm-hmm. léeg-léeg da ngay romb nit xool ko rek sa xol metti mm-hmm. ndax da naan kii su ma nekkoon place am mais nag ñëpp yemuñu yàlla rek moo xam waaye yàlla nañ yàlla dooli sutura te taxawuñu te baaxalal ñu suñu njaboot surtout loolu baaxalal ñu suñu njaboot te sàmmal ñu leen aaral ñu leen. amiin amiin bàjjan ndax àndandoo yu bon it léegi yàq nañ. roy dàq yi ba nga xamante ni surtout roy dàq yi. Mhm. da ngay jël sa doom. mu commencé di fréquenter ay nit am na ñoo xam ne suñ la fréquenter dañuy commencé di mm-hmm. roy ci yow suñ daawul def lu bon dañuy def lu bon ndax dañ naan suñ ko deful mm-hmm. dañ naan ay complexe lañ parents bu baax a baax mm-hmm. man li ma mënul concevoir mooy nga jur rek sànni ci mbedd ma yow doom euro ree doo mu dem xaalis mu am indi la nga daal di jël dugal sa poche non non là suis pas d'accord xam fan lay nekk guddi nga dem chambre am est-ce que nelaw na est-ce que ñëw na xool ban heure lay wàcc ban heure lay jàngi ak yooyu sinon su màggee dañ koy réccu dama dëkk bi dafa doy waar xale jigéen ñi xaaj bi yëpp suñu sëyee tey suba ñu ñëw surtout jamono ji ñu toll dañuy dem tey suba ñu daal di ñibbisi dëgg la parce que ci parents yi la ñu bàyyi xale yi tamit am na parents yoo xam ne seen doom ñu leen yilif leen a napp bari na fi bari na fi am na ñoo xamante ni ñi mbàjjan jigéen ñu bari léegi xaaratuñ sax sëy dañuy ñibbili xale bu góor ba <laughs> dëgg la ak mu fee ñibbili ko nekk ak moom di mooy di def lu bon. ndeysaan nee naa la wàllu yi yaa ngi fi mais gisuñu ndey bu leen jur bareetul bareetul de. wat sa bopp bi ba mu set. def ci lu la neex. soo waxee duñ la faale sa yoon lañ lay wax. wala ñu gaarawaale la naa dund sa dund bi dund sama dund. xamoo dee kañ ne lay fëgg de. Mm-hmm. yàlla. sa bis suy ñëw mu lay jël mooy kun fayekun lu ko neex lay def moo ne man maay kun mhm. doo ko diriger xamoo ba xam di nga doon téeméer at ak ñaar fukk yow comme ki gaañu ci kaan bi xale bu góor bi Sénégal gañe na ndeysaan ñu leen di waale bu baax a baax mhm, mhm, yal na leen yàlla yërëm jéggal leen mais xamoo ne man mii suba dina ma fi fekk kon lu mu mën a def xaaral ma jàpp julli après la ne li deuxième lay daw mais yow julli yàlla la neex bàjjen dëgg la may jaale waale sama rakk ji ndeysaan nuyin maar dëgg la ñoo bokk benn ndey biñ ne suba la la la match bi. dugal na statut ba ñaanal joueur yi ni yàlla na leen yàlla may ndam. bi ndam la di am fekk ko fi. yàlla def li ko neex. may ñaanal sama rakk ji fa nga jëm yàlla na la gënal fi. amiin amiin yàlla na suufu Tuuba ci sa kaw. amiin ki nga xamante ni woon moom nga yaakaar muy borom daaru. ndeysaan yàlla na la yàlla rus ci borom daaru. amiin amiin ndax nag seen maama fi def lu fi kenn. ndeysaan kon fa nekk yàlla na la gën a fi nga jóge yàlla na la yàlla yërëm. amiin la ajjanay firdawsi yàlla nga fa eggalee sa amiin amiin bàjjen muy xale bu ndaw ndeysaan nga xam ni yàlla te yaakaar billaay xamoo kañ la xamul ku judd xamoo fan la xamoo kañ la xamoo fan la xamoo nan la lay jëlee billaay dëgg la bàjjen liir day judd yàlla suñu borom jël ko léegi dëgg la liir la dul bàyyi ma sama keneen wax naa ko ba bàjjen liir day nekk ci biiru ndeyam suñu borom rey ko fa billaahi dëgg la ñuy rafetal jikko yi mm-hmm. Mm-hmm. tàppe xol yi mm-hmm. bàjjen ki la gën xolo la gën dëgg la surtout xol waaye di reetaan fekk kontaan fekk ak ak ak ak bon di metti lool soxor iñaan daba waaw waxtaanoon nañ ko fii muy lu doy waar muy soxor iñaan mhm. ni yàlla def daba da nga koy nangu soo ko nangu rek da lay sonal soo ko nangu rek yàlla dimbali la waaye kii sol na lii wala kii takk na or bi ma commencé di jalouse di soxor mhm. nañu changé nañu xam ne adduna fii kenn dëkku fi dañ see gane si mhm. na rafet nga xam ne ëllëg dañ naan ah rafetoon na de lu am solo la daba macha allah bi am na solo lool mhm. su ma doon développé fii ba suba du ma ci doyal ndax li nga laal macha allah mhm. ba tax na ñi nga xamante ne nii dañoo def safaan nga mhm. tey suñu seetaanee thème bi di jal-jali ñu waxtaan ci yaayu Sëriñ Tuubaa Mbàkke Xaadimu Rasuul mhm. di nga ne ah xaaral ma jéemoon roy ci mag ñu baax ñi ñi nga xam te ne ñoo fi nekkoon macha allah ba nga xam te ne man ka dinaa jur sax doom ju baax am na solo lool am na solo lool daba ma bàyyi la nga daal di tàggatoo daal di résumé suñu waxtu dañoo dab fa suñu waxtu dañoo dak waaye xel yëpp tey ma nga poroxaan mm-hmm. tey jii màggalu poroxaan euh, muy tey jii ci mhm. alxamis bi mhm. ndax en général chaque màggalu poroxaan alxamis lay doon alxamis la doon waaw ñu koy màggalee soxna jaara moom nga xamante ne moo def liggéey bu rëy bi mhm. moo jur ki nga xamante ni nii moo julli ci géej gi moo jur ki nga xamante ni nii moo demoon tukki ñëw indi sërice bu bari bi sërice bu baawaan bi mooy xaadimal Moustapha kon yàlla nañ ko yàlla fayal amiin na jaara yàlla na yàlla yokk ay ci barkeem borom liggéey bu rëy bu sell boobu. amiin bàjjen may sant di këram di nuyu Sénégal di nuyu ñëpp di nuyu sama tailleur nag. Mhm. ah Alaaji Ndiaye. moo ma ñëwal ñëw bu rafet. macha allah rafet na loo ñawul baaxul tailleur machine macha allah. Mhm. maa ngi lay ñaanal yàlla na loxo bi wér lu nday faatu dagg rek. yaa ko ñaw sama rakk ji mhm, Alaaji Njaay maa ngi lay ñaanal gudd fan ak wér gi yaram di souhaiter nag happy birthday Serigne Saliou Ngom macha allah sama doom may bàjjanam di léppam doomu maam biram ak mhm. ndeela maa ngi lay ñaanal Serigne Saliou mhm. borom jàppandal borom dookaa ah borom daara yee coroon xëy ga maa ngi lay ñaanal nga dunda dunda dunda dunda dund mhm. ah di la ñaanal yàlla na la sa barke turandoo dal Serigne Saliou Mbacke mu mag ma di ñaanal sa papa tamit lépp loo xamante ni nii rek ni ngi koy liggéey yàlla na ko ci yàlla defal sutura amiin amiin ak ndey sa yaay di la wax Serigne Saliou dundal loo dund doyul bàjjen tey nag Ngone dama solal. Ngone Ngone mais nga xamante ni. <laughs> macha allah mu saf baar. macha allah lu mu jaayul baaxul. Ngone ci Vaal brodé. macha allah lépp ma ngi koy jaay. Mhm. moo ma daggal mbub mii tey Vaal brodé rek laa def tey. mu ne ma dafay defi jee émission jekk ci poroxaanu maam jaara bi. macha allah sant di la gërëm ah di la ñaanal yàlla bàjjen kontaan nañ lool. macha allah neex na ba warul jeex ngoone kontaan nañ <laughs> voilà muy souhaité joyeux anniversaire mbenn chéri Cheikh Diop. Mhm. sama rakk jooju nekk ca Tiwaawan ah nee naa ko Sali mooy sa yaay. Mhm. waaye Moodu mooy sa papa mu baax loolu ñàkk ñaan ba ma jàppee ba tey bàyyiwul nee naa la man ku ma bëgg ma bëgg la aw ma sa fay maa ngi lay ñaanal sa sëy bu barkeel njaboot gu barkeel ci barke Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sa di leen jox rendez-vous mardi prochain incha allah rabbi di leen wax ne leen nii lay demee rek lépp loo xamante ne nii rek actualité lay doon. thème bu neex lay doon fii lañ koy waxtaanee si jaljali ma ànd ceeg sama mag ji macha allah.